asalaamaaleykum euh, mbokku taalibe yi asalaamaaleykum euh, mbokku réew mi asalaamaaleykum waa Sen Zoom TV ñu ngi amaat mbégte bu baax dellu si fii ci résidence su Serigne Touba ñëw fii nga xamante ne nii fii la ñu dalal euh, di ki nga xamante ne. Serigne la ci ñun tamit ndax bu ñu waxee Serigne Abbas Sall ba ca Louga doomam bu teewee fii matane leen lépp. tey mi ngi nii ñu jàkkaar lool mu ànd ak délégation bu ama ama am solo muy ñaari délégation yoo xamante ne nii benn bu ci nekk dafa ñëw ci turu Serigne Abbas Sall bu Louga beneen bi ñëwaat ci turu euh, askaay muy association bi nga xam ne moom lañu lëkkaloo. Euh, ñu war a mën a jàkkaarloo waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy diggante kilifa gi ak waa kër Cheikhul Khadim naka la demee ba tax sa teewaay fii démb ba tey yaa ngi fi euh, toog ci kër gi. beneen bi itam diggante ak association bi nga xam ni moom yaa ko jiite mu tudd askaay euh, sëriñ bi nuyu nañ la bu allahu kon nag ñu ngi kontaan ci yow bu baax di am mbégte ci suñu voyage bi nga xam ni mooy ñëw pour ziyaare ñëw itam pour euh, euh, ci comme bisu cheikh al ahmed xadim la nga xam ni bisu sant yàlla la ñun nag yaakaar naa ni buñ compté woon ren dafa war nekk suñu fukki at ak nangam bañ fi commencé at bu nekk ci jamono Serigne Saliou ba tey daal amul benn màggal boo xam ni dégg nga euh, manqué nañu ko ñun nag buñ ñëwee ci màggalu Touba rawatina bokk ci kër Serigne Abbas ma taxawal fi njabootu Serigne Abbas Sall yëpp kenn duñu laaj lu tax ngeen ñëw fii ci tuuba ci màggalu Touba ndax d'abord euh dul dara sax euh, cheikh ahmadou bamba amon na relation bu dëgër ak suñu mam ñukay wax serigne mayoro sall mosna ñew ngik bay dem dem ba bay ngik fatali ku kat man kat amna fi ben mbokk serigne mayoro sall cheikh cheikh al da delu ci wat ngik de nga dal di gis suñu mam bobu de nga ñukay wax mam mayoro sall nga xamni mo jur serigne abbas sëñ Abass Sall nag bi mu ñëwee relation boobu mu dundal ko bu baax ci mboolem njabootu dégg nga Serigne Cheikh mu euh, Cheikh al Khadim mu commencé ko ci euh, njabootu sëriñ Moustapha nga xam ni mooy premier xalifa bu euh, Serigne Touba Serigne Cheikh Mbacké ñu koy wax Gaynde Fatma nekk xaritu sëñ Abbas gàmmu sëñ Abbas bu mosaan am nag wa gën a rëy Serigne Cheikh moo ko daan yónnee. boo demee ci ndar ñoo bokkoon benn riira Pantini sëñ Cheikh ma nga dëkk ca koñ ba sëñ Abbas dëkk ca beneen koñ ba man toog naa ba tey sëñ Abbas dem ko sëñ Cheikh sëñ Cheikh ñëw këram boo jógee foofu tam nga ñëw ci euh, tabarakallahu sëriñ Fadilu Mbàkke ndax gannaaw sëñ Moustapha sëñ Fadilu moo fi ñëw sëñ Fadilu tam bi mu ñëwee dégg nga am relation bu rafet dégg nga ak sëriñ Abbas dégg nga tabarakallahu ba pare euh, sëriñ Modou Bousso nga xam ne moo nekkoon premier xalifa eh, sëriñ Fadilu Mbàkke ak sëñ Abbas ñu bokk benn maam Alaaji Sàmb xam naa dana ci dellusi si eh, boo jógee foofu ñu ñëw ci sëñ Abdul Ahad Mbàkke sëñ Abdul Ahad Mbàkke tam nekkoon wëllëre sëñ Abbas ndax dañoo bokkoon ay tool eh, sëñ Abdul Ahad dafa am dëkk bu ñuy wax Bokki Barga sëñ Abbas am dëkk bu ñuy wax Taaba ñoom ñaar mu nekk ñaari dëkk yu jege ba nga xam ni Eh, sëñ Abdou Lahad daf daan ñëw eh, taaba lu bare dégg nga sëñ Abbas Sam tabarakallahu di dem eh, bëkki barga ba nga xamee ni sax sëñ Abbas sëñ Abdou Lahad dafa doon ñëw ca kër ga fekk sëñ Abbas di dem jàkka ja ànd ak délégation mu dajeeg sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abbas boole ko ak benn taalibeem pour ñu yóbbu ko ca kër ga ñu noppalu dégg nga noppalu taalibe ba ànd ak sëñ Abdou Lahad ba ca kër ga sëñ Abbas continuer dem ci jàkka ja bi ñëwee jàkka ja ba tourné daal di ñëw fekk fa sëñ Abdou Lahad ñu jàmmante nuyoo bi muy bëgg a dem sëñ Abdou Lahad ni ko man day bu ma la fonkoon benn fukki yoon fonk naa la téeméeri yoon ndax lan mu ne ko mooy fonk gi nga fonk julli ba kenn du dox sa diggante ak yàlla tey jii mënu bi ma agsee rek mënoo nga ni ma mënu nga wàññi ko waaye da nga yemalewul ak yàlla dara yow daal bu ma sooyoon nga xamante sama benn rakk boo xam ne yàlla rek ak ñor dégg nga ak xam-xam mooy sëriñ bu Mbacké loolu moo indi sëñ Abbas ak sëñ Chouaïbou demoon diggante ba nga xam ni sëñ Abbas bu mosaan a ñëw euh, Touba euh, sëñ Chouaïbou day woo taalibe yëpp ni leen ku mën a bind nga wan ko sëñ Abbas dégg nga am na ñoo ne sax ci euh, téere bi mu mujjee yore ci dundam dégg nga téere sëñ Chouaïbou la moo tax benn bis mos naa ñëw màggal ci sëñ Saliou ànd ak délégation bañ ñëwee sëñ Saliou Touré ni kii de doomu sëñ Abbas la sëñ Saliou Mbacké nii ni daal di muñ ndeysaan ni ma xam nga sa doomu bàyyi sëñ Suaybu yi man ma ni teg mu ni sëñ Suaybu sa sa soppe sëñ sa soppe bàyyi la woon maa ngi yor téere yu bare yoo xam ni fii dégg nga tabarakallahu euh, dégg nga ci moom la jóge boo fa jógee itam alhamdulilah boo wàcc see ba ñëw suñu xalifa bu tedd bi ñu ci profité di ko gërëm di sëñ Muntaqa di kontaan ci moom ci cérémonie ba mu recevoir ñu fa doyoon na foofu waaye loolu yëpp loolu yëpp doyu ko tey jii ci ngoon tam mu recevoir at ci mbaaxam bu rëy may profité di ko gërëm tam personnellement dégg ndax am na ziar bu may defal sëñ Abass at bu nekk dégg nga boobu sax nekkul xalifa taawam sëñ koso dégg nga lay yónni ban ji loolu dafa rëy ci man waaye nag loolu li ko indi tam sëñ Bachir noonu la nekkoon kolliere sëñ Abass sëñ Bachir la mu la mu la mu naaloon dégg far Euh, euh, tabarakallahu noppalu sëñ Moustapha Bachir ñëw gis sëñ Abbas ni sama baay da la mu yéene woon ci am man de fas yéene naa dégg nga euh, mottali ko daal dem ci Porokhane dafa fa ay néeg yu rafet a rafet ndeysaan xoola indil ko dégg nga sëñ Abbas ci ngiig mu doon néeg yoo xam ne comme ko tabax la woon kooku sëñ keroog bu sëñ Abbas génnee àddina tam sëñ Moustapha Bachir dégg nga moo fa tabarkallah moo fa jëkk kon ñun kër gi suñu relation ak kër gi dégg nga dama koy yemale fii rek mais dafa yaatu waaye ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa yàlla dimbali ko te itamit ñëw bi ñu fi ñëw dégg nga ci njabootu sëñ Abbas yëpp ñoom laa fi taxawal tabarakallahu di kontaan ndax wax dëgg yàlla euh, am naa fi xarit yu bare dégg nga tabarakallahu toujours bu ñu màggalee nii ba bisu tey bi sëñ euh, ndeysaan sëriñ euh, nam tuddati Euh, maanaam kër Serigne Xaasum euh, fa la ñuy dem ndax maa moom ñoo bokk nekk ci réew naar ya tabarakallahu euh, dégg nga di jàng ka sëñ mamoor la ñuy yëkk jaar bu ko defee du ñuy dem kër Serigne Kile tabarakallahu njaboot sëñ Fallou gu bari suñu xarit ñu Serigne Chérif Mbacke démb tabarakallahu dem nañu këram tam am na Serigne Mourtala Falil tam suñu xarit la ndax ñun ci réew arab yi bare bari suñu ay xarit la ñu woon dégg nga Cheikh Ahmed Badawi ñoom ñëpp. tabarkallah famille bu ci nekk daal mën naa la ci limal ñu dul jeex ñoo xam ni dégg nga ñun ak ñoom benn lañu kon nag dëkk bi na ma ko sëñ Saliou waxoon rek ni ma dëkk bi de première màggal mun ma fii de kenn ëppale wu la fi moo tax nag may lancer appel ci Sénégal ci wax ni nitu yàlla yi joxe nañ ay exemple yu rafet di commencé ci Hadji Malick Cheikh Ahmad Bamba ñoom ñëpp dañ nekkoon benn bëggante kon seen njaboot li leen war mooy ñu bëggante se kon nag ñoom bu ñu nekkee benn taalibe itam ne ñu àndandoo dégg nga nekk benn boo dégloo waxu sëñ Muntaxa bi yëpp li muy wax yëpp alxuraan la lay wax sunna la lay wax liggéey la ñuy wax kon nag may laa sa appel képp koo xam ne taalibe nga boo dee taalibe murit dégg nga bëgg Cheikh Ahmad xoolal li Cheikh Ahmad Bamba bëggoon te mooy yàlla yonant bi dégg nga liggéey bëgg ñu baax ñi seeta sëñ Muntaxa bi xam ne mooy xalifaam loolu mooy itteem yàlla alxuraan sunna liggéey kon taalibe yi na ngeen roy seen sëriñ yi boo dee tijaan bi itam royal buñ fekk naan tijaan la tijaan la amul solo xam nga lu am solo royal Cheikh Omar ma Haaji Malik koo ci roy rek dégg nga mais roy ko ci mbaax roy ko ci bëgg yàlla roy ko ci bëgg alxuraan roy ko ci bëgg liggéey lii boo amee rek Sénégal jàmm rek moo fi def kon nag lii laay tëjee tabarakallahu di jàkkaarloo nag ki nga xamante ne nii moom ah, sama xarit la euh, di suñu soppe moom moo yore eh, association bi askay dama koy daal di jox kàddu gi rek mu daal koy ci lu wax ñu lan waral association bi ak kañ ngeen ko doore ak lan ngeen ci jublu itam. soxna si kontaan nañ lool di bég ci bis bu màgg bu tedd Mouhamadou Aline Mbaye secrétaire général de l'ASCAI tey jii bésu mbégte la di bésu màggal gu rëy dañ koy am pour wax ci dafa ni. dafa dajale jullit yëpp ci Sénégal imaam yi sëriñu daara yi professeurs yi waaratekat yi tiijaan xaadir murit ibaadu rahman mboolem seen ñëpp daal ñu ngi lëkkaloo ci askaay am na ay professeur d'université mën naa ci lim ko tudd Cheikh Fall am na ci ay docteur am na ci ay baykat am na ci ay jàngale moom daal jàppandi daal dëkk bu nekk aussi actuellement ci Sénégal am na fa ay représentants moo di suñu ñëwee fii mbooloo mi day xaw bare parce que dëkk yu euh, région yu bare seen représentant dafay nekk fii ci kër gi ñu fiy dajaloo di seetante xel di waxtaan di seet listaam nu nuy gën boolewoo ak nu nu gën dajaloo lépp ci njiitalu sëñ sa sëñ Abdallah Sall ibnu Abbas Sall mi nga xamee ni matte na ko lool suñu borom def ni nag mi ngi juddoo ci ci mbirub quinze août ca Ndar ay nit dajaloo dem sa géej gi romb suñu armée yu sell yooyu yoo xam ni ñetti téeméeri wàllu yu ak fukk ak ñett su denc doon ko fa dem di def ci xeetu mbon mbon yoo xamee ni festival de Woodstock sax demewul woon noonu ci boobaa nag si la gars yi créé association bi boobaak léegi sëñ Abdoulaye Sall jiite ko ñu koy dox ak di wax lépp lu xew ci l'islam lu bëgg faagaagal l'islam ci àdduna muy ci partout dans le monde askaay dina si joxe kàddoom ba nu waxee rasulullahi sallallahu alayhi wasallam askaay jox na sa kàddoom lépp lu ñu fi wax daal ci diine loo xam ne dëppwul ak diine dafa nar yàq diine dafa nar yàq la paix sociale mooy jàmm bi nit ñi jàmmoo te diine lal ko ndax du loon diine xam nga jàmm ji duñ ko mën am askaay daf ci taxaw ba mu mët sëkk loolu nag ñi ngi ko def ci ci dajaloo boole suñu xol mu nekk benn ndax doo gisee sëriñ bi di wax léegi affaire charia ak sunna soo yemee ci alxuraan yem ci sunna mais sam doo doo jox sa loxo mukk moroom ci ban tarixa nga bokk jullit xam nga loolu waru ko def ndax ñoo bokk penku ñoo bokk waxtu juróom yi ñoo bokk lépp keem la rek kenn ku nekk ci ci escalier bi ngay téeg pour yéeg askaay nag sunu borom bi dafa def ni muy bijou pour réew mi yëpp dafa mel na rek jamaa boo xam ne réew mi yëpp ko bokk te heure bu nu ñëwee fii ci ci dal gii nu ñu nekk ci kër Serigne Touba gu sell gi lépp loo xam ne ñu ngi ko war si ñun ñu ngi ñu koy fay defal askaay dem na ci xalif général des mourides si Mouhamadou Lamine Bara yóbbul ko carte de membre d'honneur mu jël bis bi ma koy jël ña nga fekk sa toolu bogoyee bu sëñ fallu yi tracteur ba ngay def di liggéey sëñ abdallah sal euh, abdallah sam mi jàng alxuraan cheikhu na jang jàng alxuraan bi ko sëñ abdallah sam jëmele mbir gi wax askay mooy lan dafa ni que lii ñun la waroon ñun la waroon wante yàlla def na ni yéen a koy def donc nag lii ngeen wax du fekkee ni yéen a ngi fépp fu leen woo daan wuy ñu dem def ko tiwaawan def ko njaasaan def ko euh, euh, def ko si ñaseen ni ñoom ñëpp cene ba yëpp ñu def ko ñun ñëpp ñu nangu loolu nekk si donc nga gis ni euh, lo xamé ni don ko war di ka sétantal don war di sem aussi numu gën jëmé kanam ndax lu bax la donc l'islam bi ben rek la mënul xar mukk ci aduna ndax jamm ji am ci réew mi l'islam moko fi def mais askay aussi mi ngi liggéey liggéey bu reuy waaw gouverneur bi mu ñëwé ci euh, guddi laylatul xarar bi nga xamé ni seigne seigne abdallah sall dan dan koy def ci def ko waa moko don def ci ndar di ci autorité yeb di ci ñëw mom légui mu koy def chaque at ba mu ñëwee dafa ni que naa la ngërëmu président ci mbirum askay xam nga lii lu rëy la lu rëy la donc nag ñun ci loolu rek lu nekk ci jàmmoo dajalee jullit yi mu nekk benn pour mu jëm kanam rek askaay daal yàlla na ko yàlla yokk